Euh, dellu siwaat ci borom xam-xam yaakaar naa dootu ñu leen ko euh, présenté di sëriñ euh, Fallou kemaan ñu di ko santaat bu baax a baax mbokk yi nag jamono ji itam nekk loo xam ni xaw itam jege si ci diwaanu Ndakaaru nañ leen ko doon waxee saa su ne itam waaye nag fii ci golf ci terrain golf sud boo fi egsee daanaka yaa ngi ci diwaanam duñ ci sore dañ koy daal di jox kàddu gi mu daal di nuyoo bu ko defee rek ñu daal di dellu si jotaay bi lee sëriñ Fallou Kéemaan asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu ngi lay fay nuyoo. di nuyu mboolem kuy jàkkaarloog suñu jëmm moo xam bitim réew wala ci biir réew mi di la jaajëfal bu baax di jaajëfal mboolem équipe bi di di leen sant di leen gërëm ndax jàmm ji info moom sama site la jërëjëf. jërëjëf sëriñ Fallou tabarkal la ñuy am mbégte lool nag tabarkal la euh, ci sa euh, sanc nga xamante ni daanaka yaa ngi fi ab liggéey ab diir yaa ngi fi waaye li ko waral itam am ay liggéey yoo fi. Euh, taxoon nga ne fi waaye sëñ Fall bëgg nañ nga waxtaan ci li waaye ba nga noppee itam gox goxaat bi bëgguñu nga sori fi lu waral li ni mel. waaw euh, parcelle moom day foo xam ne euh, dafa neex a ñëw te nit bu fekkee ne nit ñi dañ lay soxla di la yittewoo ñëw bi di leen ko yombalal day am solo waaw ndax ñun fu nekk rek nit ñi nit ñee ñu fa moom ñoo ñu fa bàyyi mm-hmm. kon lépp loo xam ne day tax seen mbir gën a yiween gën a disponible rek. noonu ci loolu la ñuy nekk moo waral ñu jege si nekk fii incha allah. mbokk yi mu nekk jotaay bu nar a am solo lool ñu am ci mbégte nag jege bi nga xam ni tey euh, jege si waat na ko fii ci diwaanu golf muy sëriñ Fallou Kéemaan sëriñ Fallou mu mel ni dañuy njëkkee suñuy waxtaan ci seet euh, seet moom ñu ci baree bare sëñ Fallou même bu ñu wax dafa euh, ni ma ko waxee rek mbir mi ngeen nekk tey dafa mel ni mbir boo xamante ne comme rek dañuy wax ni tey jàngoro yu bari tey boo leen doon wax dina yéeme lool maanaam secret bi leen yàlla dénk muy wàllum ñaan yàlla waaye tamit ci wàllu seet am ñoo xam sax dañuy toog sa keppaar euh, ngir rek ñëw jàng si li nga xamante moom wàllum seet tey dañu bëgg a xam lan moo tax amaana ñoom am nañ ci li ñu toog waaye yow ci ban façon seet ngay seetee ak ban toogaay ba tax ni euh, gaa ñu bari li leen jaaxal mooy wàll bi ngay seetee jërëjëf Cheikh Mouhamadul Mountakha laaj nga ma lu am solo loo xam ne luñ xam la luñ man la luñ jekku la seet moom yàlla daa dogal liñ ci man amul kenn ku ko man loolu ngi ciy jëflanteel xam nañ ko man bu ma lay seetal day mel ne damaa jàkkaarloo tele damay gis sa lépp amul leen loo xam ne damay umb nit ñi nag nañ gën a bàyyi xel seet ndax seet day lu am njariñ loo xam ne toujours day orienté nit ki noppal ko ci lépp lu muy dugg lépp loo xam ne nit mi ngi ci dugg bu bu bëggee yàlla defal ko ci tawféex na ko seet ndax euh, lépp loo xam ne dañ koy war a seet boo ko seetul gaaf da cee am moo xam soxna soo xam ne da koy takk da ko war a seet moo xam oto boo xam ne da koy jënd wala kër wala place boo xam ne danga koy sañc war nga ko seet ndax place mën na baax ba noppi du doon sa place léegi yooyu yëpp boo ko seetee da lay orienté mm-hmm. bu fekkee ne sarax war na ca sax mm-hmm. mu wax la sarax bi nga xam ne boo ko génnee mm-hmm. bu soobee yàlla du am benn jafe-jafe seet dafa xóot xóot goo xam ne buñ ko doon waxtaanee daanaka mën nañ fee fanaan waaye noonu dañ ko xam-xam goo xam ne ñi ciy jëflante ak ñun moom léeg-léeg toujours damay seetal nit muy yooy te loolu xam nga ne ku mënta seet doo doo doo ko def toujours damay seetal nit mu ne ma xanaa dangaa ñëw seen kër la laaj koo xam ne da nga nekk Touba di ko seetal mu nekk Dakar noo nooy xamee seen kër bay bay bay dem seen kër di ko laaj ñun li ñuy jàkkaar loolu comme comme mm-hmm. waaw seet moom liñ ma ciy wan ak li ma ci gis lépp sax suñu ma ko wax suñu mun taxaar sëñ Fallou balaa ma lay tey kii baatu seet boobu rek mën na ndar képp jotaay bi euh, mu bëggoon xam ci ban anam ngay seetee parce que secret seet bi ci boppam amaan amaana ñoo xam ne naam sax ñoo ngi seet euh, am nañ secret bi waaye yow wàll bi ngay seetee dafa bokkul wala lu mu doon loolu moom sama secret la te sama xam-xam la ndax yàlla dugal la bañ juddoo ba léegi ci jàng ak jàngale lañ nekk ak gëstu xam-xam mm-hmm. loolu nag li ñu ko may mooy gëstu noonu lañuy ñuy seetee affaire rawaan la waaw affaire rawaan moom lañuy seetee dañ ko tërbiyee ba mu ba mu nangul mm-hmm. saa buñ ko woowee rek ñun li ñuy jàkkaarloo ci say mbir li li nga weesu ak li nekk ci sa kanam day mel ni télé ah. lépp lu ñu bëgg xam rek dañ koy xam waaw waaw moo tax man bala ma seetal bala maa jëflanteeg kenn ñi may woo xam nañ ko ci man. Mm-hmm. képp ku ma woo téléphone bala maa jëflanteeg yow li ma lay wax mooy nañ seet ba pare ndax seet bi moo lay orienté mm-hmm. euh, xamal la li nekk ci nit ki nga xam ni nga koy mën a dindee. ndax euh, nit mën na ma boppam mën nay metti mm-hmm. te bopp bi metti yi koy waral day day bëri waaye seet moom. comme seet rawaan gi ñuy seete danaan la nangam moo jàpp nit ki. bu mhm. ko defee loolu da nga ko di mën dindi. incha allah. mbokk yi muy sëriñ Fallou Kéemaan tabarkàlla yaakaar naa li muy wax ni itam ñu bari jaar nañ jaarat ci itam euh, dima ma leerlu itam di ma wax ci jëmm gi euh, naan ma kii li mu àndal moo tax tey ñu xaw a taxaw tuuti ci wàllum seet boobu ndax ñoom seen bopp dañoo xaw a yéeme ci wàllu yi muy seetee kon sëriñ Fallou Kéemaan a ngoo ku weddi nag ah, euh, incha allah numéro yaa ngi baaru écran yi boo wootee itam lañu la wax danga xam ne moom lu wér la sëriñ Fallou Kéemaan mu mel ni benn mbir dafa nekk ci yow. Eh, muy benn kàddu da nga naan lu ma mën rek da su ma la nee mën naa ko mën naa ko waaye lu ma mënul dama naan la mënuma ko eh, te loolu ñu baree baree bari amuñ ci ragal yàlla ci wàllu woowu eh, tey point bi nga taxaw noonu tey ba dugg ci ko wàll woowu am na ñoo xamante nag bu ñu mënul sax dañu naan mën nañu. mën tax côté boobu man dama ci sant yàlla bu baax man képp koo xam ne yàlla boole na ma ak yow boo ma wooyee dinaa la jël bépp client boo xam ne mas nañ jëflante nga yónnee sa xaalis rek jot nga say ñaan mm. damay bëgg képp ku ma woo jot ma foo bëgg a jaar jaar fa liggéey bi dama koy teg ci aw yoon xaalis bi li muy neex neex neex neex du ma ko jiital waaw man li li ma bëgg mooy képp koo xam ne yaakaar nga ma ba wax ma rek suñ borom faj sa aju ci man waaw. sëñ Fallou Kéemaan ñu war a nag dugg ci point bu bari ñu bari dañuy dégg rumeur di wax euh, Balla Gaye 2 euh, Boy Niang 2 tey yaa ngi nag ci goxu Balla Gaye ñu bari moom ñu bari sax ñu ngi xool naan. ah sëñ Fallou ah, ndax du sëriñ Balla Gaye ndax combat bi nekk na combat bu doy waar combat bi yaa ngi bëgg a jege premier janvier ba nga fi sañcee yàggul ah, ñu bari nag xel yaa ngi jëq eh, jaax bëggoon nañ nga indi ñu ci leeral tam sëñ Fallou lu la tax a ñëw sañc lu xew. jërëjëf Cheikh Mouhamadoul Mountakha combat bi moom combat bu lëndëm la ci ñoom ñaar ñëpp ñoom ñaar ñëpp combat bi daal lëndëm ci ñoom léegi kenn ku ci ne la ci ciy dimbali mooy farlu waaw. combat bi moom buñ ci farluwul combat bi mën naa dem mën naa mën naa dem ba bañ a am sax waaw waaye képp koo xam ne eh, yàlla dogal na nga nga wooma ci ñoom ñaar combat bi dinaa ko teg ci sa loxo ndax sarax bi nga xam ne boo ko génnee gañ a combat bi dama ko xam waaw waaye sëñ Fall nga baal ma yaa ngi golf nag bul fàtte daanaka eh, sorante wa kër Balla Gaye ah, boo waxee loolu dina xaw a jaxal askan wi waaye loolu du ci dara moom même booy ñaan sax bu ma njëkkee woo ma jox ko ndam li loolu moom du ci dara. ndax ah. ndax li li yor moom lu lu wér la loo xam ne képp koo xam ne ci ñoom ñaar woo nga nu bu ma la waxee sarax bi jàppal la ko rus bu la neexee li nga may jox mën ngaa dem ba daan ba ñëw jox ma ko loolu moom amul benn jafe-jafe. ah dafa mel ni nag wax fa dëgg yàlla li ñuy wax nag bay sa wewu tànk ah sëñ Fallou man ah Balla Gaye moom ah, daanaka waa golf lanu waa géejuwaay géejuwaay golf kon nag yaakaar naa ne moom euh, Balla Gaye moom dafa mel ni moo gën a jege nag jamono bu ñuy wax nag sëñ Fallou Kéemaan bu ñuy waxante nag dëgg-dëgg. waaye nag kon combat bi moom dafa lëndëm lëndëm goo xam ne ñoom ñaar ñoom ñaar ku farlu rek mën nga ko moom. d'accord waaw lëndëm lëndëm boobu nag la koy dindi moom du ko wax ci ci ci ci ci internet. loolu moom képp koo xam ne yitteel na la jëlal numéro bi rek nga woo lépp day leer bu soobee yàlla. mbokk yi sëñ Fallou Kéman dégg ngeen li mu wax ci Balla Gaye Boy Niang 2 tabarkalla mënuma euh, ñàkk rek ñuy wax ci buntu boobu itam ndax ba ñu njëkkee dégg téléphone ne nga ma ni combat bi dafa lëndam waaye nag am na ay mbir ci biir euh, moo tax ba ñu ñu laaj la ci tuuti ñu ñëw ci wàllum nopp jagleeg nopp dañu gis souvent euh, da nga ne sax yow doo ci wax daanaka danga ne am na yenn xeetu nopp yi moom xale yi lañ koy bàyyal waaye sama mopp nopp dëgg dëgg caaxaan caaxaan dindiwu ko te lu ma nopp day jàpp. képp koo xam ne bëgg nga xale ñu taxaw lànk ne duñ la ko may moo xam ci réew mi la moo xam bitim réew la moo xam tubaab la moo xam nit ku ñuul la moo xam nit ku xonq boo nu woowee bu ñu déggoo rek bu soobee yàlla ñu seere lépp mu sotti waaw képp koo xam ne yaa ngi nekk ak sa jëkkërit euh, mu mu mu mu wan la ginnaaw nanguwu laa jox boo ma wooyee dama koy seere boo ma ko man fi ma fi may euh, fi ma toog laay toog di seere ay sëy sëy ni ma koy seere damay damay damay mel ne ku yor oto di dawal fu ma neex laay tourné loolu moom jigéen ñi ma xam xam nañ ma ci am na biteel bu may jox jigéen ñi ñu koy raxasee seen kanam bala ñoo ànd ak sa seen jëkkër loo wax sa jëkkër da koy def jigéen ñi Touba ak Ndakaaru lool lañ ma toppee. waaw sëñ Fallou wàllum nopp boobu est-ce que tam léeg-léeg jigéen ñi dañu dem ba euh, euh, takk euh, sagar wala buum sax seen seen bakkanu jëkkër yi di xëcc ndax ndax ndax loolu du dem ba ëpp ci ñoom. loolu moom du ko def sax ndax ñun dañoo jàng sariya xam nañ lu jaadu ak lu jaaduwul. nit ki bu fekkee ne bëgg na la nga bëgg ko ba pare danañ danañ la kondireel seen diggante ba kenn du ci mën dara kenn du ko mën a yàq waaye nag jigéen wërta yilif boroom këram ba mu ëpp mm-hmm. ndax loolu bu ko defee rek bu bu amee ak njaboot mën na feeñ ci njaboot jigéen ñi ñuy woo loolu dañ leen ci orienté waale ba ba duñ ko ëppal day yem rek waaw àdduna lu mën a doon day day digg doomu waaye wër ëpp ba mu ëpp mm-hmm. waaw loolu ku ko defee duggan ci sa njaboot waaw te nit ki moom li may wax client yi rek man képp ku may àndal damay bëgg nga teg ci tege ci yoon woo xam ne ndam rek ngay am waaye doo am doo doo am defet mukk waaw macha allah mbokk yi sëriñ Kéemaan a ngi noonu di leen fàtte rek adresse bi euh, mu ngi sànc nag euh, jamono ji ñuy wax ak yéen fii ci euh, golf boo ñëwee ba ci terrain golf sud bi rek daanaka rek yaa ngi ci diwaanam numéro téléphone yaa ngi noonu ci baaru écran bi 77 274 29 48 wala beneen bi 78. 532 01 64 sëñ Fallou Kéemaan mu mel ni dañuy ñëw nag ci wàllu càngaay bu doy waar bi ñuy dégg muy euh, càngaayu ubbeeku bi nga xam ne danga koy joxe euh, daanaka sëñ Fallou nga ne kooku ko xas ba am xëy na amaana téy la ñuy wax waaye boo ko xasee ba am say mbir moom jag na euh, loolu nga teg ko fan. sëñ Mountakha loolu ñi ma ci gën a soxla sax mooy ñi nga xam ne mënuñoo am dara hmm? wala ñi nga xam ne dañoo dem ba daanu ñi am dara sax man soxlawuma leen ci càngat bi waaye képp koo xam ne nekkoon nga situation nekkatoo ci. boo ñëwee boo sangoo sangat bi li nga bëgg danga koy am. sëñ Fallou Gueye man am na ay hommes d'affaires yoo xam ne yoroon nañu lu dul jeex waaye dañu nërmeelu jamono yi te xamuñu lu mu doon ñooñu est-ce que ñooñu dinañ neex redressé waat ndax dañu dem ba découragé ci àdduna. ba ci jigéen joo xam ne dafa toog lu yàgg mënt sëy sama sangat bi boo ko sangoo góor ñi dana la topp ba nga tiit. Hmm? waaw lool loolu day yëfi mag yëfi mag la dafa ànd ak ay njafaan bu fekkee ne yow mii bu la joxoon tey nga koy sangoo ñi nga a dégg ay àddal lay boo amee ni bor lépp ngay fay. homme d'affaires yi daanu nag ba ba découragé am ñoo xam bu ñu xasee ba daanu maanaam li ñu tey woon dafa am solo bu ñu daanu dañuy dem sax boo moytu dañuy am problème bopp ndax ñàkk ndax nañu meloon bu njëkk ak léegi. dañ ma woo ma woowee ñoom du leen laaj dara lépp lay seere ba ba lépp di doxaat. ñu teg lépp fañ ko war a teg. bu lépp doxaatee ñu fay ñu fay ma lañ ma war a fay. ndax ndax ku ma jëflanteel moom boo ma fayul la ma war a fay moom la may def man xam naa ko fa ma toog lay toog téye ko ndax man sama liggéey yëpp ay code la liggéey yi may liggéey yëpp code la waaw. sëñ Fall waxtu baa ngi euh, euh, dox daanaka li ñu desee ci temps bariwul ñu ñëw ci wàllum ngóora ngóora gi nag laa bëgg euh, ñu tëjee waaye balaa boobu sa am na question boo xam mooy question actualité bu ñu war a waxtaanee waaye ngóora ñu dellu si waat daanaka moom mu mel ni dafay lëmbee jamono gi fépp foo dégg ngóora bi nga xam ni sëñ Fallu kéemaan bi muy joxe moom du caaxaan ngóora bëgg naa ñu dellu si tam ak sëñ Fallu parfois bu ñuy gën a dox jamono moo ngi bari. xam nga dafa am loo xam ne man rek moo moo lay dimbali man waaw ki nga xam ne dañu ko booleeg soxnaam mënu ci dara boo mënul moom <laughs> faaw day doy waar waaye clients yi ñu ma ciy booleel yépp képp koo xam ne boole nan la ak sa soxna mënoo ci dara bu ñu jëflantee ba déggoo balaa bëtt seta balaa bëtt set dag ma wone ma sotti na képp koo xam ne dangay gaaw a daanu walla sa ndox néew lu mën a doon wala sa sa sàkk rek di gàtt boo ma wooyee ma seere ko ci ci diir bu gàtt nu la neex noonu lay toll. amul ay calmants ak yooyu de calmants yi dafa bëri nag sëñ Fallou Kéwaan. déet man li may liggéey lépp dama ko liggéey ci garab naturel li ma lay jox traitement yi ma lay joxe boo la ko joxee ba jeex na nga war a mel ngay mel. waaw man du ma la jox loo xam ne tey da ngay man ëllëg nga ñàkk man man man man sama garab demeewul noonu waaw li ma lay jox boo ko jëfandikoo bu soob yàlla fa nekkoon ngay nekkaat. Hmm. te soxna yi ñëpp dañu bëgg waaw. ñu ñëw ci fi ñuy daanale nag Ousmane Sonko mu mel ni euh, daanaka mënoo toog ci jotaayam saa su ne euh, xëy na duñ la ci laaj bokk na ci ñi njëkk wax ci jotee euh, jamono internet wax nga ci lu lu sori boobu sax mbir yëngu yi ni yëngoogul mbirum Ousmane Sonko ak concert casserole bi muy wax ak yu demee li ni mel ak présidentielle bi nga xam ne ñoo ngi koy xaarandi dana dem wala du dem noo gisee taxawaayam jamono ji. xam nga gaa yi dañuy bàyyi ba nga wax ci benn mbir kenn ku ne topp di wax. waaye usmaan Sonko moom mbiram ba ma ci wax kenn waxu ci te la ma ci waxoon it laa ci waxaat mhm. gaañ ñi nañ maytu Seydina usmaan mu sell mi waaw gaañ ñi nañ moytu Seydina Ousmane mu sell mi ku ko moytuwul ku ko moytuwul du yàgg mu tiim sa bàmmeel waaw ndax am na loo xam ne lii sëñ Moussa di wax naan lu yàlla def loo ko bañ bañ bañ asal dana am hmm. lu mu dogalul boo ko dee jéem xam ne loolu doo laahu Seydina Ousmane secret boobu la yàlla def ci moom képp koo xam ne bëgg ngaa dund te te te te te bëgg fekke na nga ci moom ba ci aji saar sax ay mbokkam bu ñu jógul ci moom balaa yàgg du baax ci moom ah, ndax daa daa laal daa laal ko ko ëpp doole ah sëñ Fallou tey sa yaram tàng na ndax daaw egg sax ci côté yu mel nii eh, di ci tàng mais bu ma la xoolee ni tey moom sañ sëñ Fallou Kémane tey da ngaa tàng ci wàll bi mais xanaa nag waxtu bi daf ñoo dab xam naa ni eh, ñi ngay ñi lay xaar bari na waaye tamit ni ñu koy waxee dañu lay jox kàddu mujj rek nga tàggatoo. waaye Mountakha gone gi ay mbokkam nañ jóg ci ma wutal koy ñaan sëñ Seydina Ousmane li ko yàlla moo ñaan daa doy war de waaw bu ko defee ñi ngi daaneel foofu suñu kàddu rek di leen sant di leen gërëm di di wax ñëpp nañuy na nañu nañuy siiful jàmm ji info ndax site la bu am solo boo xam ne ci ci ci ci ci lu baax loo am njariñ rek lay dox bu soobee yàlla ndam rek ngeen di am yéen incha allah. jërëjëf mbokk yi mbokk téléspectateurs yi doon ànd ak ñun ci jàmm ji info sëriñ Fallou Kéemaan la tabarkàlla mbokk yi nag di borom xam-xam euh, doomu soxna itam ñu di ko santaat bu baax a baax a baax waaye jamono ji ñu waxee itam jamono ji itam euh, daanaka daan nañ ko fekk ci diwaanu Touba waaye moom jamono ji ñuy wax ak yéen mu ngi ci Ndakaaru itam saa su ne di jëflante ak askan waaye itam euh, toogaay bu am solo fii ci golf boo ñëwee ba ci terrain golf sud bi rek daanaka sorante ak diwaanam numéro téléphone yaa ngi noonu ci baaru écran bi 77 la 274 29 48 wala beneen bi 78